indisposant. Mm. Mm. merci Ça peut mm-hmm. euh, son pouvoir du rouge à propos du livre sur la euh, Casamance, un livre de l'historienne française Séverine D'Alberto, euh, chercheuse le fauflé, si CNRS CNRS comme euh, Ousmane Sonko euh, sans détour faire accusé de faire du doigt directement li nga la France. Ouais mais yabel ce et eh, c'est pas la première fois ñu avons ni en 2010 beneen bindkat bu Jean-Claude Maru mhm. moom tamit bindoon na conflit de Casamance ce que disent les armes mm. bindoon na à l'époque Abdoulaye Wade daf koo tere woon ci Sénégal donc duguleet moo tax bi ma déggee Cheikh Yérim Seck mu ñemewuñu ko def jamonoy Abdoulaye Wade ñemewuñu ko def jamonoy Abdou Diouf dama nan naan jam jamoy euh, Macky Sall mhm. da nga da nga wax yego ko won waaye su Abdoulaye bindon nañ fi mais Sophie Malibaud nag voilà voilà gis nga yoyep yëpp euh, am fi une journaliste qu'on a expulsé kuñ kuñ fi génnee expulsé ki tamit Abdoulaye wad amon na mhm. ben taxaway bu mu amoon ak Babacar Justin Ndiaye Babacar Justin Ndiaye waaw ci ci mhm. conflit bi c'est-à-dire yalla daf ñu baaxe ay président yoo xam ñëpp question bi ils sont intraitables manam amul luñ ci sedde wala luñ ci wax autonomie Casamance D'abord, d' ñu ci titre bi rek provocation mm-hmm. autonomie de la Casamance. Mm-hmm. après nga possibilité et dette moraux euh, possibilité et dette morale autant pour moi. Mm. possibilité et dette morale après nga def euh, j'ai plus la phrase mais provocation la def sur toute la ligne. Mm. genre nga jébbal dëkk boo xamante ne ba pare am audace ñu fi ne def cérémonie de dédicace. Mm. moo tax quatre ans bi mu ko doon defee fa lañ tere cérémonie de dédicace bi. Mm. Mm. Euh, ma dégg Cheikh a fallu ko wax pour ñu tere ko non c'est c'est faux mu fi amee. Mm-hmm. après Ousmane Sonko mu dem fu gën a sori ba mu livre bi sax dañ koy tere fii ci Sénégal. Mm-hmm. donc loolu pour man. ay mesure la yoo xam ne dafay wane ne fi ngeen wax wala fi ngeen waxee doon et puis bi mu leen di tontu en français la ko defee. Mm. xam nga bu ko defoon ci ah, wolof le message le concerne. voilà mm. bu ko doon defoon ci wolof mën nañ ne li mu wax wóolu ko dafa doon daw. Mm. mais daf leen tontu en français pour wax leen ne affaire Casamance bi nii génnee leen ci seen loxo seen yoon nekku si. Mm-hmm. parce que 1982 ba tey ji mënuñu ne France génnewu ci loxoom. mënuñu wax parce que xam nañ mbir mi. conflit bi ñi mu doon arrangé ak ñi mu arrangé wul. Mm. ñenn ñi fond de commerce lañ ko defoon. Mm-hmm. amuñu intérêt mu jeex. Mm. léegi ñu bëri dañ doon wax ne Ousmane Sonko ak ñi mu àndal bëgguñu conflit bi jeex. ba général Kandé bi nga xamante ne nee nañ moo moo moo moo daaneel foofu. Mm. moo chassé euh, rebelle yeeg yooyu yëpp. bi mu ñëwee li mu njëkk a def mooy jëlee ko fa yóbbu ko feneen. mais démb discours bi mu def. wane na ni amul fenn fu mu demee demi mesure sax naan waaw ñu waxtaan. mais danañ loolu Casamance ci Sénégal la bokk. da koy wéy ci Sénégal euh, indi discours bo xamné ne ñëpp xam nañ ni kii kat affaire autonomie euh, mm. bu concerné Casamance doxu ci waxu ci. loolu benn mbir la benen mbir bi am timit lima ma sama attention ci discours moy dafa am lu wax lo xamante ne pour man soxlawul woon sax mu koy wax. moy ku nekk dafa war am responsabilité. Mm-hmm. lu jëm ci walum sécurité lu jëm ci walum Casamance ak yéen gis nga affaire généraux yi ñi wax noonu. Mm-hmm. par exemple général Kandé jëlé nañ ko fi yobbu nañ ko Inde est-ce que xam nga ne am na ñoo xam liñ ci xam kilo libre dit wax xamuñ bi. Mhm. dégg ñu ko journal fenn wax ko. par responsabilité. par responsabilité. Mhm. par responsabilité. par responsabilité. si wax ak ak mel. mais su parfois doo am sax la bonne information. Mhm. nga da am fit nga dugg ci sujet xam maîtriser woo nga wax la après les gens vont dire que nañ ko bàyyi journaliste la ñu ngi acharnement. mais ban dëkk la ñu dafa am ay sujet yoo xamante ne gis nga am na dëkk yoo xamante ne yooyu duñ ko sax café gis nga lu jëm ci wàllum sécurité États-Unis li ñuy wax wàllum démocratie ak yëpp sécurité mm-hmm. boole ñu ko seen démocratie mm-hmm. boole café wuñu ko wàllum mm-hmm. sécurité fi président fii lay fanaan ak yi sécurité ni leen toll am na yoo xam ne top secret la wax top secret jeex na mais fii ngay ñëw gis koo xam ne dafay toog naan général bi lii nañ ko def lii moo am nii la ci waroon a fekk kii daa mer général bi mu xuloo président économiste ñi ngi xeex pale yooyu yëpp après <laughs> dara du la ci fekk pour man yooyu non pour man yooyu dañu war am plus de responsabilité gis nga mën nga opposé wu ak nit Ousmane Sonko ak Diomaye mën nañ la bañ a neex mm. nga opposé leen mais ak mm. responsabilité boobu ñun ñëpp la war mm. Macky nekk na fi banam am na zone yoo xamante te ji opposant yëpp ne mais gars yi daawuñu ci dugg Ousmane Sonko daana ko dugg mu dugg mu wax ba dugg si biir sécurité bi déedéet mën na wax justice mën na wax économie mën na wax ne mais wàllum sécurité a dugal ñi ni noonu pour man am na yoo xam ne il faut que ñu am plus de retenue. Mhm. rawatina yenn journalistes yi. parce que nag du xam lépp wax lépp. c'est waxatuma laa nag bañ a xam ba pare di wax. parce que mhm. loolu moo fi bari léegi ñu bari li ñuy wax xaaj bi xamuñ ci dara. Mhm. dañuy nappe rek. mooy journalisme napaté boobu mo fi yàggoon am révélation ay révélation ay journal napaté ay tok ba mo neex la nga baram sa sikkim ne li ma xam hmm. ay li ma xam wala tok ba sa nga genn sa casque raay sa bopp ne li ma xam xamo dara donc pour man yoy napaté yoy xam nga tout ce qui relève tout ce qui relève <laughs> de la sûreté de l'État hmm. et de la sécurité hmm. du luñuy ñuy ça c'est vrai du luñuy def objet de débat wala wala de surenchère loolu mom je crois que dañ ko fi war a mhm. voilà loolu mom euh, lu ñu war a la waaw. c'est sûr. Mm. Mhm. Moustapha Mbaye. Euh, tu tu as terminé. Clédor amoo leen loo xam ne war nga ko yokk par rapport ak euh, ce fameux livre de cette historienne française bi di wax ci autonomie bi bo amol len ñu ci mëno yokku ñu ñëw ci li nga xamné mo moo nekk le débat. waaw xanaa. on a découvert le pétrole sur le bloc de Domflor, au mhm. large de la Casamance, nous -hmm. nga Exxon Mobil euh, on est dans les années 80. Euh, dafa bëggoon indi une plateforme pour exploiter gisement Euh, Elf aussi. Mhm. jamono boobu Elf moo fa France nous tam une indi plateforme. jamono Yoyu, euh, bi ñu ko joxee américains nous France dañu Casamance de façon flagrante. Mhm. donc l'eau sous Abdou mhm. donc je crois que gouvernement a fagaru sous-entendu le premier ministre bi mhm. pour indil ay trouble mhm. ci zone où nous avons stabiliser déjà. donc il a demandé vigilance. parce que français et ils sont en train de perdre pied partout en Afrique. Sénégal pratiquement. donc euh, à la suite de Ousmane Sonko je les Français. tout à fait tout pour avoir des rapports civilisés avec le Sénégal dans le respect du Sénégal Mais profité de ça base et quelques hein. mm. et quelques personnes. Mm. occupé sur hectares hectares hectares. Mm. éléments français du Sénégal nous nous pour nous, nous, tout à fait armée française amatul lu mu def. amul benn base bu ils doivent ils doivent nous rendre tout toutes toutes les bases nañu dem nañu dem mhm. c'est déjà une mesure préventive. Mhm. prévention bi njëkk mooy armée française ne fi jóge. Mhm. seen marine une armée de l'air une transmission Nous ñëpp nañ dem tout à fait ñu dugg euh, sur le débat. campagne électorale, PASTEF euh, qui draine des foules, euh, tandis que l'opposition euh, à la traîne cette capacité de mobilisation PASTEF c'est koy élection législative